lii ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM tey nag seen émission gox bi am euh, gan gu mag su ma ko mënee tuddee noonu di Babacar Sadikh Seck di meeru HLM man nag benn question rek laa am dama la koy la xaw yaa may dalal wala man maa lay dalal. léegi dama lay delloo yëpp <laughs> kon baax na bokk ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la di rafetlu itam li nga xam ne moo di ñu nangol euh, invitation bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ci euh, plateau gox bi. maa ngi leen di fay di leen remercier yéen itam. Mhm. ci invitation bi ngeen ma defal. Mhm. muy lu baax. Mhm. parce que boo nekkee ci mission ay nit. dinay baax léegi-léeg. ngay am jotaay yu mel nii. nga xam dina la permettre nga mun di wax ak say nit. di leen leeral. parce que dañ ne. réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo am. bu ñu waxtaanee rek. dinañ déggoo. goxu HLM nga jiite te bu ñu nee HLM rek ab gox bu yaatu la bu nee dinañ ne HLM 1 2 ba cinq ba 6 ak yeneen yi nga xam ne ay quartier la. monsieur le maire gestion communale lu HLM tey fan nga ci toll. ndax am na yi nga xam ni moo di ay réalisation yi nga xam ni def nga ko ca biir douane parce que euh, vitrine la tey nga wax ñu lan nga xam ni yow ay jéegal yi nga xam ni yow def nga ko ci commune bu HLM. merci beaucoup jërëjëf. Mhm. dama yaakaar ne bi may ñëw HLM. Mhm. maak samay morom la ñu ah. mhm. du man rek li ñu jëkk gàtt nga woon. mooy kanamu HLM. dafa ñaawoon. boobu temps booy romb HLM. ngay romb avenue bu day ni avenue Cheikh Ahmed Bamba ñu dem ba ci trottoir bi am ay néeg boo fa rombee ñi dëkk foofu yëpp mënuñoo génn seeni kër mu bokkoon ci suñu bëgg-bëgg mooy mu jóge fi yàlla jàppale ñu itam ñu jëlee fi loolu mu metti woon trop su may fàttaliku bés bi ñu leen fay jëlee ak lañ fa jëlee ci ay mbalit def nañu presque semaine di ko tuuri suñu mairie nekk mbë mbëbës <laughs> mais li gën a garaaw mooy ay nit dañu ñëw neñu <laughs> mag man fi laa juddoo fi laa màggee mais mosuma taxaw fii ma gis garab gii hmm. muy benn <laughs> nit woola ne la maire tey de maa ngi taxaw ci marché bi maa ngi janoog service fële euh, IPRES nu mu tuddati ci euh, caisse de sécurité sociale mhm. ak maison du parti mhm. loolu dafay doon plaisir ci ñun mhm. parce que teggil nañ ay nit benn màgget bu am quatre-vingt-dix ans na ma ma ñëw pour ñaanal ma rek mu ne ma man maa ngi màgget mais musuma mën génn sama kër dox muy aki parce que dama xam ne ku génn sa kër mën nga doxantu mu doon nag lu métti. Mhm. muy benn. Mhm. bi ñu ñëwee it place boobu bàyyi ñu ko mu mel noonu dañ ci def suñu kemtalaay kattan. Mhm. bu ñu jugee ci place boobu. ñu jël affaire lamp lamp yi. am na benn quartier bu ma ne ñun suñu bébét yëpp. mooy lumière. mosuñoo am lumière suñuy mag suñuy papa ñoom ñoo def ku ci nekk taal lamp. pour suñuy koñ leer. muy HLM 6 ma ne leen balaa may dellu soit fii dañ fi taal lamp foofa taal nañ fa lamp maanaam tàq na léegi moom tàq na mhm. tey jii ma lay wax ci HLM mhm. amul fenn fu amul lamp mhm. fenn fa amul lamp maanaam nit mun na dox heure bu ko neex leeraange rek la fa mais day monsieur dañuy dellu si ci marché HLM xam nañ ni naam bokk na ci marché yi gën a siiw fii ci Dakar boo ne HLM rek sa xel HLM marché ba lay dem. marché ba nekkin bi naam nga ne def nga si ay jéego waaye li nga xam ne moom moo jëm ci euh, euh, yi nga xam ne moo di recette bi ndax mi ngi dem ca ñi nga xam ne nag ñoo di ca askan wi ndax ku ne marché wax koom. dëgg la loolu mooy suñu coono parce que kenn yërëmuñu. ñiy joxe ci kaw. dañ boole ci ñi am alal. Mm-hmm. mais bokkuñu ci. ah joxe bi. melul ni ñu ko yaakaaree. des na lu bari des na lu bari. kon li ñu di wax. amul li tax amul ñi ma remplacer man. Mhm. maire ak man bi ma fi nekk léegi. Mhm. mënaguñoo am budget bi ñu bëgg. mooy lan. Mhm. bu ñu ne milliard. mosuñu koo egg. te bu ñu demee ci gëstu bi topp topp fayeku bi. bu ñuy jeexal. dañuy am genn wàlla wala genn wàll bu teg tuuti loolu la ñuy am donc loolu mais nag li ko waral mooy dañu ne marché bi moom siiw na waaw marché international la waaye des na des bi mooy dëkkuwaay yi sonn nañu ñu dëkk sonn nañu commerçant yi ñoom seen bopp sax parce que amoon na temps commerçant yi ni mënuñoo jaay ndax kenn mënul dugg seeni boutique soo xëyee suba di dàq xale yi mhm. ba ngoon juuti ñaata la cent cinquante franc mhm. cent cinquante franc yi da nga koy dawantu ba ngoon mhm. xam nga mënulaa jox budget borom boutique yi li ñuy jaay ci biti moom la ñuy jaay ci seen biir boutique ñoom li ñu war a jaay cinq mille dafa am ku génn ci biti di ko jaayee mille franc donc loolu yëpp mu ngi ci donc marché bi nag war na nag mun a apporter. li nga xam ne yaakaar nañu ne. yaakaar nañu ne. mën na nekk. mais commerçant yi moom. samay xarit lañ nag. mais du ñu faykat. parce que boo ci toppee. pour laaj leen. dañ leen dawloo pour ñu fay la. <laughs> Oh, oh day metti mais nag suñu xarit lañ. waaw mais daal du ñu joxe kat. xaar ma joxe serveur yi rek numéro yi 88 la 628 84 84 wala 88 628. 85 85 wala 88 628 86 86 mun ngeen dugg itam yéen it askan wi surtout ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci goxu HLM bokk ci émission bi monsieur le maire dañuy ñëwaat ba tey ci marché bi parce que duñ fa jóg. Mm. mais des fois dañuy ne dañuy room dañ naan dem euh, oto yi nuñ fiy gaaree marché bi dafa am anarchie maanaam da ngay romb HLM boo boo deful nii sa mbagg rek tuuti doo mën a dem. lan mooy waral euh, kii xat-xat bi ci ci biir marché bi. mais même boo defee sa mbagg noonu sax doo dem looloo gën a garaaw li koy andi mooy. Mhm. jaaykat. Mhm. mooy kenn du seefu kenn. Hmm. mbedd bi mbedd buur la. dangay ngay teg yi. Mhm. amul suba. bu ñuy xëy. te doo nekk defar tere xam boo demee ba nga xëy suba. nga fekk digital yi. nga lal fa wala nga teg fa sa taabal. kooku yabeel la. nit ñi da leen di yóbbu naan pourquoi maire bi di leen laa juuti mais juuti. Mhm. même boo yoroon say rajo. Mhm. di dox ak moom. Mhm. boo dajee juuti da nga war a fay juuti. mais nag du yoon nga ñëw. jël sa place. fekk diggu tali. nga lal fa soo gaaree sawoto oto. ci marché bi boo gaaree. cinq minutes. nga dugg boo génne fekk ku ci. marchandise am gars dañ ne maire bi moom dafa gaaw ci ay sabo torop waaw sabo yi nag. sabo yi itam dama ciy dellu si nag boo saboo ñii dañuy ñëw dajji sa saboo mm-hmm. dem seen yoon mm-hmm. sabo nit ñu ñoo xamul valeur u sabo mm-hmm. malheureusement itam ñun amuñu autorité boobu bu suñu éléments yi di sabo foog ñu ànd ak police parce que policiers yi ñoom ñoo assermenté ñoom ñooy ñëw lu ñu gaaw gaaw gaaw ci sabo faykat yi gaawuñu ci fay. parce que boo saboo. Mm-hmm. téléphone yi day commencé daw. te comme nag maire moom mooy ku ñu génnee ci biir gër yi rek ne ko gardeel waa kër gi <laughs> kumu laal ki jarbaatam la kii xaritu jarbaatam la mm-hmm. kii yu noonu la mais sabo yi moom mm-hmm. buñ ko munee gën a def dinañ ko def parce que il faut nit ñi nangu ne toll nañ fu nga xam ne ci réew mi il faut nag ñu delloo si xel yi mhm. xam ne tali mhm. oto ko moom trottoir mhm. kuy dox moo ko moom jaaykat na dem marché marché nag day fees su marché feesee ñu wuti feneen loolu mooy wax bi beneen bu ma mën a jeexalee ci marché bi mooy ah. li nga xam ni moom moo jëm ci foire Ah. daan ko ko organiser maanaam boo buñ ne monsieur le maire dafay organiser foire rek ah. commerçant yi daal di tëb ah. fan mooy waral euh, kii bi euh, ñagas-ñagas bi indi ci foire yi xam nga ñagas-ñagas bi yëpp leen rek la toujours damay samay xarit lañ de hmm. man hmm. foire hmm. man la autorisé pour ma def ko waaw kooku dafa bokk ci samay compétence mais man am naa beneen jot bu dul defar foire su commerçant yi nekk ci marché bi seetuloon seen bopp ñu toog ak ñun. Ah, ay commerçant ñoo lay seet si ne la dañoo bëgg foire. ah oui bi ma amee bu mu gënee tàng sax. Mhm. juróom-ñaari lettre laa jot juróom-ñaari demande. Mhm. juróom-ñaari yëpp. Mhm. commerçant lañ même kii foire sax. commerçant la mais moom li mu leen rawee mooy. moom dafa ñëwul ne man commerçant laa damay foire. parce que bu dee da ngay foire. nga ñëw nga fay ma ay taxes. nga toog ci sama koñ. nga def fa loo neex. nga pare nga bàyyil ma samay salté mhm. ma nekk di defar kooku la nga may fay amul lu ma njëriñ par contre moom dafa ñëw ne mhm. moom dafa dem commander matériel mhm. comme gis na ne foofu dindi naa ko te maa ngi toog lu yàgg mënu ma ko defar muy def may defaral ay pavé pavé yi mu nga fa wedd gisu bokku ci donc bi mu ñëwee moom ne defar pavé du ma yemale ki nga xam ne day ñëw defaral ay pavé ne ma dinaa la defaral nangami mètre pavé dinaa la pavel ñaari juma. dinaa la paweel église. j'ai dit ma di ko yemale ak ku nga xam ne li nga may fay. soo ma ko fayee mënumaa fajal benn soxla. te lii def fi taxaw suma loolu moo waral. ñu tànn kooku. nee nga itam lu tax coow li. boo seetloo daaw ma ci tontu. parce que mënuma comprendre. nga ne yow commerçant nga. foire dans ci dëkk yëpp mooy. jaaykat bi li mu am ci boutique am di ko jaay. su ko jaayee at ñaari at jarul. Mhm. mu def foire marchandise boobu lay génne lal ko ci biti. Mhm. jaay ko. ok te boo demee ci biir foire bi nag. Mhm. ñu ci bari ci marché bi. dañ fay jël ay place pour jaay. Mm. ñu dem ba nag man. ak borom foire bi dañuy combine mais man mënu ma combine ak borom foire bi. ndax te borom foire bi sax si ñoom la bokk. borom foire bi commerçant la. Mm. borom foire bi. commerçant la. soo demee centenaire fekk ko fa. Mhm. soo demee biir plateau fekk ko fa. Mhm. commerçant la comme ñoom. Mhm. mais li ma bëgg rek mooy. ñoom commerçant yi. ñun convention la si signé woon. ak waa ji. ne ko di nga def nangami foire. di nga ñu defal lii. bu loolu jeexee itam dama bëgg mu leer nag. man. du man maay foire. mais nag foire moom. ah neexul bàyyi. ok du nag lu nga xam ne. dañu war a occuper tali bi. Mhm. daa yi mën dapat suñu buggee ñoom commerçant yi. Mhm. ñun ubbeeku nañu. Mhm. ñu ñëw ñu toog. ñu waxtaan. ok ñëw bokk marché waxtaan bi mi ngi wéy ba tey. ah non ñun ñun mosuñu tëj suñu bunt. ok ñun mosuñu tëj suñu bunt. ñàkkul ñoom ñu ngi déglu. waaw ñoom i tamit. comme ñu ngi déglu ñu gëm na ñun. suñuy buntu ubbi nañ ko. ok saa bu nu buggee. Mhm. ñu ñëw ñu waxtaan. Mhm. dafa am loo xam ne il fallait ñu comprendre ñu. Mhm. ñun kayit la ñu woon. ki ñu signé kayit. su respecté li ñu ko wax. ñun dañu war a li mu ñu wax. respecté nañ ko nag. li ci des nag. ñun ak ñoom la. beneen problème mais dañuy dugg ci entre parenthèse ba wax nga pavé bi léegi. Ah. fu mu toll ndax lépp yem na léegi wala des na. waaw waxuma la sa yem na. mais moom dañu d'accord ak moom dina pavé. li ko dalee ñaari voies yi. Mhm. ba géejawaay. Mhm. pavé na ko. léegi war na pavé. Mhm. ñaari ñaari juma. commencé na benn juma bi. église bi. ñoom ñoo am liggéeyu ñuy liggéey. mais su paree day defar église bi. kon mun nga dalal xelu waa HLM que ni pavé yi dafay parce que ñoom sax dinañ dañu am njàqare ñu ne pavé yi ba nga ko commencé yeggul. moo tax comme ma ne tey occasion la ndax mën nga dalal xel waa HLM que ni pavé yi dina yegg. pavé yi bu soobee yàlla. Mhm. dana yegg parce que convention la bu ñu signé. Mhm. te ñu ko signé ñu ngi fii. Mhm. donc loolu. na waa HLM gëm ne. su yokkuwul. du wàññeeku du wàññeeku. kon seen maire moo leen jox assurance boobu dañuy ñëw ci Solida. fii sa compétence la. waaw liy dugg ci koppar. xanaa jëmul ci mairie ba. leeralal ñu lool. ndax li fiy dugg ci koppar ñu ne bëri na de. loolu de bëggoon naa sax. Ah. waxuma sax population bi déglu ma. Ah. mais ñi ci kaw sax déglu ma. kon leeralal bokk. xam nga dafa metti mhm. nga nekk ci kër. Mhm. ñu ne fii kat am na pétrole. Mhm. saa boo xëyee suba pétrole bi di gilli. te yow doo ci gis dara. xam nga day naqa day expliqué. noonu rek la mel ci ñun. ñun solidaire bi ñu duggee fii ba léegi. amuñu fi dara. yéen ngeen ne. dërëm du du mooy dugg si yéen dara su di daal monsieur le maire loolu waral lool. ah kooku nag xam nga fi hmm. zone industrielle la. loolu mooy problème bi. Hmm. te boo xoolee ñaari mouvement hmm. am ñoo fi ne. artisan yi fi ak industriel yi. quand même gaa moom ñun léegi. ñu ngi jéem a dugg ak ñoom. même bu ñu amul foofu dara. mun nañ fa am ci RSE bi. ñu jàppale ñu. jàppale bi mooy. loo amee loo amee usine. ci mhm. H ci ci Sodida. Mhm. ngay dem di jëli waa xaar yàlla. Mhm. dem di jëli waa jam ñaajo. ñuy ñëw di xëy si du di tardé. doomi HLM yi ñu ngi fi waaw ñu ñu jàppale ñu. jël doomi HLM yi. lu doomi HLM yi di toogee defuñu dara. kuy jël nga jëlal ñu doomi HLM. ci ñi amul métier. ñu jàngal leen ci loolu moom la ñu nekk ak ñoom. Mhm. di ci wax. Mhm. te incha allah. Mhm. ren ji dinañ ci taxaw bu baax. donc su la déggee mooy maanaam est tamit itam jotul yéen it ngeen bind bataaxal xool gouvernement bu Sénégal naka lay gën a mën a jàppale ci wàllum koom koom fii ci Solida ndax li fiy dugg itam naam kenn du ne bariwul de waaye bari na de te kuñ jàppale nag di nga dem de. li nga wax dafay dëgg ba xam ne. li muy bari bari na di jox gouvernement bi. Mhm. fexe nañ ñun ba am commissariat de police. donc xanaa loolu. Mhm. mu ngi bokk ci liy aar. Mhm. askan wi bon ñun lu ñu bëggoon. gouvernement bi nag moo xam nu muy seet. mais bu ñu amee lu ñu gënal. ñu compal ñu. ci loolu. dana mën a indi yëkkati gafa mairie bi. parce que SODIDA fi mu toll ni ak HLM. dafa nekk bunt. bu xatee rek. coono day am ci bi. dëgg la mais buñ ko defarul. Mhm. coono day am ci industrie bi. Mhm. te ki lay fay. Mhm. su demee ba nga xam ne kenn du ko seet si parce que dañ naan ku dugg foofu doo génn. parce que mun nga duggee buntu. a ah. balaa ngay génn nga def fa quarante cinq minutes. loolu xam nga baaxul. loolu nag pour def ko. gouvernement bi. moo ñu war a jàppale. ñu ngi góorgóorlu nag. di jëlit ay doomu HLM. mais ay xale lañu. am nañu volonté liggéey mm-hmm. am nañu courage bi mm-hmm. mais mm-hmm. ñun suñu doolee moo tolluwul noonu mais fexe nañ tam ba HLM luñ ci mën ci loolu ñu koy def donc bu ñu amee lu ñu gënal mooy gouvernement bi jàppale ñu nag ñu bañ ñu xool texte yi parce que texte yi souvent dafa dul bokk ak réalité bi jot nañu saytuwaat waaw ñun réalité bi fii mooy réalité fii mooy il faut ñu dimbali ñu boo ko xoolee. Mhm. bi ñuy ñëw fii. Mhm. maire yi. Mhm. dafa daan jël ay xale rek. bu leen jëlee. liggéey loo leen bu at jeexee. Uh-huh. ñu dem seen yoon. amuñu ci dara. ñun fexe nañu ba ren bu soobee yàlla. xale yi nekk ci mairie bi yëpp. ñiñ fekk ak. ngeen fa fekkul ñi ñu fi àndal. ak ñi ñuy fekk si. dinañ fexe ba ku ci nekk. boo daan am benn. Mhm. nañ fexe nga am ñett. Mm. nañ fexe itam ba ñaari cadre na mu am. Mhm. ñi nga xam ne dañ leen di embauché. Mhm. daay man. ak dañ leen defal. CDD CDD. bu soobee yàlla. kooku dépassé nañ ko sax. parce que def nañ ko ba pare. fu ngeen ci tollu lim bi ñaata la. lim bi nag. bugguma ko. fosal wax mais. am na solo minimum minimum minimum minimum. dinañu nekk deux cents. xam nga deux cent yu mhm. nga xamee. da leen di fay. Mhm. ñu am ay droit. Mhm. di dem am jabar. war a am ay euh, IPRES. je dis war a feebar. te ñooñu ñëpp. dañuy fexe ba ñoom. ñu dugal leen. ci biir euh, ci biir euh, naka la tudd CMI bi. CMI oui. nga xam ne dina leen permettre. du ñu jax ba nit ki. Mhm. coonaam mooy lan. Mhm. doomam feebar na. Mhm. mu war a faju feebar na. mu war a faju soo ko defalee nag possibilité. su feebaree nga mun ko defal kayit mu dem hôpital. ñu faj ko. defe naa ne loolu ci la. dañuy wax tamit beneen pàcc bu am solo ci wàllum santé. Ah. monsieur le maire ñu ne def nga si ay jéego. Ah. lan moo waral tey li nga xam ni moom moo jëm ci communication bi jàllul askan wi ñoom dégg ko te fi mu jul fondation 221 mayoon na leen ay lal wala si ONG bi hmm. seen collaboration la waroon lan moo tax li nga xam ne moom moo di centre santé centre de santé bi nga xam ne nag yëkkati nga ko askan wi ñoom daa mel ni dañu jàpp ne HLM boo tuddee santé rek dañ naan ah foofu doxul monsieur le maire ak li nga def ci ay réalisation est-ce que jotul tamit waa HLM xam ci li nga def ci mbirum santé waaw loolu yëpp d'accord naa ko waa HLM xam mhm. c'est-à-dire nit ki. Mhm. munul lu dul gàtt nga. munu lu dul yéeneem. Mhm. amoon nañ yéene def yàlla jàppale nañu. Mhm. parce que li ñu fi andi. ci matériel. mu nekk matériel bu mot presque trois cent quatre vingt million te du matériel bu màgget nag. bu bees sorti usine la. Hmm. matériel bu bees. ñu àndi ko def ko ci biir HLM. Mhm. li ñu jublu nag mooy. Hmm. centre de santé bi ñu yëkkati niveau bi. ok ñu yëkkati niveau bi. def am na wala des na. de santé bi. Mhm. ñu yëkkati ni ko nit ki yëgee nag mooy. Mhm. fu nit ki daan fayee juróomi dërëm. pour faju pour mu yëg ko nag. dañ koy wàññil mu fay juróomi dërëm. Hmm. parce que dina sentir ne fii def nañ fi dara. Hmm. te loolu itam ñu ngi ci. Hmm. parce que médecin chef baa ngi ciy liggéey. Euh, responsable poste de santé bi. mu ngi ciy liggéey. donc ci côté boobu. te du ñu yem foofu nag. parce que ñu ngi bugg a def bloc opératoire. ñu ngi toppatoo salle rajo. am nañu déjà ay appareil pour dialyse. donc loolu ak yi la yu ñu am. li ñu dese nag mooy. ubbeeku mhm. yokk saal yi mhm. am salle d'urgence mhm. am yëpp parce que hôpital loolu rek la nit ki feebar ñëw ñu mun koo jël en charge léegi faj ko loolu ñu ngi ci te du yem foofu nag dinañu ñu a ci boo xoolee itam leneen dinañ koy def ok garab fexe nañ ba dinañ joxe quinze millions ci ay garab te suñu joxe nag yemul ci uniquement centre de santé bi ak poste de santé bi. ok ba dañu am yaakaar ne. Mhm. douane hôpital bi mu fi def. Mhm. waa HLM a ciy bénéficier. Mhm. donc bu ñuy jox suñu centre yooyu. ak suñu hôpital bi. dañuy jox douane bi. ok donc quinze millions. danañ ko joxe. de prise en charge personnel bi. comme am na it ci loolu. mbiri élèves yaa ngi ci. muy CMU. ok ñu jël engagement nag. conseil municipal élèves yi nekk ci HLM yëpp. Mhm. maire yi moo leen di. jël na leen en charge ci CMU moo leen jël ci CMU bi. Mhm, loolu. Mhm. du ñu yem sax foofu. parce que wax nañu bàjjenu gox yi. nañ ñu seetal ci quartier yi. mag ñi nga xam ne. mënuñu. pour ñu jàppale leen. dinaa ci yokk itam leneen. mooy lan fondation boobu dañ moo ñu ne moom. mooy fondation deux cent naa seet. xale yi nga xam ne yëpp. Mhm. dañu juddu seen baay jóge fi. ndeysaan ñuy ay orphelin. Mhm. dinaa leen jox seen tur. Mhm. ba mu nekk cinquante. ku ci nekk bu weer dee. ñoom dinañ la jox xaalis bu nga xam ne. moom la ñu entretenir xale boobu. waaw monsieur le maire yii yëpp lu tax ñoom askan wi communication bee jàllul yéen ak askan wi wala lan lan moo sooxe. foofu nag. foofu nag <laughs> nattu la bu ma am. parce que def naa lu ne nag mais xam nga communication du ko jug rek mën ko. dafa am ñaar da koy mun ba pare. bugg ko te ki ngay communiquer itam. mu neex a comprendre. loolu mooy problème bi. Mhm. mais ñun vraiment gëm nañ ne daal. Mhm. yéen a ngi def mhm. boo jëlee tey. bi ma ñëwee fii. dama fi fekkoon benn corbillard. yóbbu nga ko ba ñaata ku jël corbillard bi mhm. mënoo ko yóbbu feneen mhm. mais mun nga defar nit ñi mhm. parce que corbillard moom kenn sawarul sax ci di ko tudd buñ ko mënoon a baax <laughs> mais nag comme nag yàlla moo ne dañu ne li yëpp li corbillard di jëriñ moom la ñu jëkk a sàkk leneen li bien sûr donc il faut ñu sóoraale ko bi ñu ñëwee dañ bi ku ko jël da ngay joxe fukk fukki ñaata dix mille ñu ñëwee ñu ne kenn dootul fay amul kenn ci HLM ku xewle. Mhm. ñëw te joxuñu la bi même bu fekkee ay dëju teg lañ. Mhm. dinañu fexe bokk. Mhm. ba wutal ku ci nekk corbillard. bu la yóbbul. sauf nag dañu ne. su corbillard bi dee génn ndakaaru foofu nag. di nga dañuy demander famille bi. ñu joxe ci. ñu ñëw itam ñu seet leen nag réew boo ci nekkee. nga ne délégué de quartier yi. gaal lañ leen di jox. Mhm. tuuti na mhm. par rapport ak seen man-man ak lu ñu def mhm. mais boo xoolee itam imaam yi dañu bokk ci quartier bi bien sûr boo feebaree ñu ne woo leen imaam soo ñàkkee xaalis nga ne maa ngi dem parce que boo amee kersa imaam ngay seeti bu jiitee ba pare nga ñëw sëgg ci wetam dépense mu jël ko jox la ko soo jaaxlee ñu ne imaam ku xam ñu ne yóbbu leen ci imaam ku dee ñu ne na ko imaam jullee bu heure julli jotee bu imaam jot ñëwul ñuy xool lu jot imam mhm. kenn du calculer ndax imam mhm. am na dépense wala imam feebar na bu ñu ñëwee ñu ne mhm. imam yooyu dañ leen di wutal li délégué de quartier yi am ñu di leen ko jox bàjjenu gox yi xam dañ ñëw fekk leen ñuy ñu nga xam ne suba ñu ngi ci centre de yi ñu ngi ci biir kër yi ñu ne bu ñu leen neenal nañu fexe ba ñoom ñu am dara bon ñun ñun jëfandikoo wuñu alalu dañu jël alalu HLM delloo ko HLM. nga ñëw ci sociale bi ñu ñëw ñu ne. bi ñu ñëwee. li ñu fi njëkk a fekk. dañu joxe deux mille cinq cent mandats. bii mujjee joxe nañ trois mille mandats. mu nekk presque soixante millions. ou soixante dix am na même ku ñëw ne ma. Mhm. li ngay joxe bari na ma ne ko ah, bari na pour yow mais bariwul pour ci ki nga xam ne. ñetti junni yooyu ñuy joxe. Mhm. dina am kër yu nga xam ne bu fa ñetti nit ñetti junni duggee. Mhm. dina nekk lu mun a jar benn xar. Mhm. ñi nga xam ne benn ñetti junni yi. mun a jënd tama tamaate. soble ak kaani. parce que luñ jublu mooy. ku ci nekk ci tabaski tabaski bésu feet la. ku ci nekk boo ko mënee dimbali nga dimbali ko. loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy def ci social bi. mu des école yi. dina ci la laa yoon ñëw de. waaw man damay anticiper rek. foo ci toll parce que dañ naan dañ dañ naan eh, école yu bari ci ndakaaru ah. am na ay abri provisoire. Ah. keroog rek su ma juumul bu ma doon génn ci maire bi. Ah. di ñibbi. ab réunion laa fekkee. nga doon dalal parents d'élèves yi. ndax maire bi. tey li nga xam ni nag moom moo jëm ci école yi. loolu sa priorité la. bi ñu ñëwee fii parce que tamit damay wax. Mhm. ci turu conseil bi yëpp. Mhm. parce que man capitaine d'équipe laa rek. Mhm. équipe laa àndal. donc boo naan maire bi maire bi maire bi day xoggaliku. Mhm. ñun ñëpp la. bi ñu ñëwee fii ci école yi dañu envoyé dañu amoon nag chance. Mhm. mooy ñun ba ñu ñëwee de kon suñu bureau. ki ñu dénkoon école yi. ki ñu ko dénk ba léegi sax. directrice su école la. donc mu doon ñu nag. guidé. parce que bi ñuy ñëw résultat bi baaxuloon fii. ci école yi. Ah. fii mu toll nii. Mhm. école yëpp seen résultat yéeg na. Mhm. mais bi ñu ñëwee dañ leen jox. ak mhm. classe bu nekk. dañ ñu bindal li nga xam ne moom la élèves yu soxla ñu jox leen ko jox leen saak. loolu doyul ñu ne. enseignement bi dafa développé léegi dootul rek ñëw di bind ci tablo ñu wutal leen ay. Euh, photocopieuse mm-hmm. yu nga xam ne mm-hmm. en même temps maître directeur bi mm-hmm. wala maître bi suy defar texte am su koy tapé daf koy yóbbu directement ci imprimante bi imprimante bi tiire ko école bu ci ne ñu jox la benn yemuñu itam ci école yi nag parce que c'est c'est CM yi fi nekk dañu considérer ne suñuy doom a ci jàng ñun amuñu xàjjale CM ak école primaire malgré que ne école primaire la ñu sant. Mhm. même chose bi itam ñu ngi koy def. ren mhm. Mhm. jëmale ko ci ñi am ay daara. ay yaatal ngeen ko daal. oui parce que ñun dañu considéré ne. HLM c'est un tout. mënuñu cee génnee kenn. li ñuy def. ci biir école yi ci biir école yi. ñun gëm nañu ne gëm nañ ne. xeeb nañ ko trop. da wax léegi daje bi may dajale. dama doon def man may def arrêté bii nommé comité de gestion mhm. comité de gestion mhm. du dara lu dul mhm. ñoom ay parents d'élèves lañu yoo xëy suba rek ci seen temps ñu di ci consacrer dara école bi mais nag buñ dul waxtaan duñu mën a dem fu sori moo tax bi yoon ñu jël décision di def ne école yëpp la ñuy bu ñu ñëwee ñu xool ñu waxtaan mhm. bu ñu waxtaanee ñu seet li manque ci école bi mhm. ñu ànd defar ko mhm. loolu moo ne fi case des tout petits mu ngi fi bokkul ci suñu prérogative mais ñun ñoo ko ci boole parce que tey ki yore case des tout petits ci ñun la bokk doomi HLM la compétence mënu na ko yóbbu feneen mais mu consacré ko ci HLM pour toppatoo xale yi donc léegi soo jëlee loolu ñu xëy suba état bi. Mhm. ñu am PACASEN. ok PACASEN benn moom daa mel ni PACASEN daf leen dooleel bu baax. waaw mais nag mais nag. Mhm. bu gaawee ñëw moo gën. dafa yéex. oh yéexoon na mais nag dégg nañ ne. Mhm. mu ngi ñëw ndànk-ndànk. mais dañu bëgg mu ñëw lu bari. ah parce que ci PACASEN bi nag. waaw liñ ci décidé mooy. HLM juróom-ñetti école la am juróom-ñetti école yëpp dañ koy defar. xam nga tam ne. ku toog ci rajo di wax nag engagement nga jël. ah <laughs> juróom-ñetti école yëpp. Mhm. dañ koy defar. ci pakaseen bi la bokk ci pakaseen bi. Mhm. dañ ko prioriser. Mhm. mooy lu ñu jëkk di def. donc. marché bi ñuy jëkk a ci foofu la jëm. bi ci topp. suñu mairie bi nekk fii Tépare. jiiñ nañ ñu fi nag lu ne. nee nañu ñun la mais du woon ñun. <laughs> ñu ne sax maire bi lekk na xaalis. bi waaw bi yeggul. ngoog looy tontu ci loolu. waaw loolu. Uh-huh. mooy dañu ñi ko wax sax. Uh-huh. ñàkk xam rek la mais. Uh-huh. du méchanceté. est-ce que amuñu woon information bi di jéem a bluffé wala yow. ah ñàkkul mais xam nga foofu du woon ñun. parce que kooku mairie Dakar. moo ko doon defar. Ah. bi ñu paree. maire de Dakar itam vraiment ñu ngi koy remercier. parce que malgré tout. boole nañu ci. ba à la dernière minute mu def marché. marché bi jàll. mais nag réew dafa am ay texte. su ñuy waxee lii ñeneen ne non waruñu koo fay ñoom. mënuñu ci dara loolu moo ko tardeel mais ci biir pakaseen bi. dañ ci dugal mairie bi. donc dinañu defar mairie bi. taal làmp yi. defar xale mhm. biir yi nag. biir yi ci la mhm. su ma la déggee mooy maanaam HLM daal am na fi nga ko jële am na fi nga ko fi fi mu nekkoon ah. waaye am na fu nga ko yóbbu tey mais dafa des lu bari nag dañ ko bugg rek mhm. dañu bugg rek xam nga nit góor-góor rek nga mën a ne bien sa nawle mu lay xas mhm. te doo mën a tontu yàlla nañ ci yàlla musal ñun daal li ñuy ñaan yàlla mooy waa HLM dem ba gisal seen bopp. Uh-huh. tali yi itam. Uh-huh. commencé nañ ah nee nañ tali yi moom. waaw tali yi wax ne xam nga tali moom des des xam nga tali dafa dul bokk ci compétence bi. Uh-huh. mais nag maire amul droit ne. du ci sama compétence. yow du xaaroo. non waruloo xaar parce que ñi ko yoree. ñoo ngi yow bokk mission. soo leen seetiwul. wan leen sa naqaru population. bu keneen ñëwee dañ ko koy defal. surtout sax daf leen di sonal. période euh, nawet. mu ngoog donc léegi. commencé nañ defar tali ñu nga cité port dinañ fa defar ñetti tali defar nañ benn machine ba paan machine nag moom nit a yem comme dafa paan may wax waa cité port incha ñetti tali yi danañ ko defar marché bi may wax tali bi ma gënoon na nag feebar ñaar la woon mooy tali bi jógee ci police bu jëkk bi jëm ci immeuble mhm. ci biir. waaw dama daan ruus bu ma jaaree foofu. Mhm. parce que xale yi foofu su may xarit lañ. Mhm. su ma rombee comme oto bi mënul vitesse. te mënumaa teg samay vitre. ñu sànni ma bal monsieur le maire. suñu tali bi. bés bu paree. kooku yàlla may nañu pare nañ ko. tali bi gaat nga wàcc ci marché bi. fekk ñaari voies yi. incha allah. danañ ko def. donc daal chantier yi ñu ngi fii. ñu ngi chantier yi. mbedd yi itam. fi mu ne am nañu ba léegi cent cinquante points lumineux. ay làmp yu nga xam ne LED lay doon bu tàkkee day mel ni bëccëg. <laughs> dinañ ko monter ci biir HLM. fan yi <laughs> bu soobee yàlla. ah mais bu ñu xoolee corniche ba. Ah. corniche fan ngeen ci toll parce que ah. dañ naan corniche ba oto yu fay gaare bari na. macha allah corniche ba ndax yow yaa ngi ci yaa ngi ciy bàyyi xel. xam nga corniche bi. Uh-huh. maa ngi lay gërëm bu baax bi ma ko laajee parce que corniche bi. Uh-huh. daf ma feebar. feebar bi may ci am mooy. Uh-huh. man maire laa HLM moom fi teg. Mm-hmm. dama am njaboot it dëkk HLM nag. Mm-hmm. du ma doxandéem. Mm-hmm. du ma locataire. daal bokkoo ci maire yi. non man leen ñu dem man fii fanaan man. man ku ma ku bëgg rek guddi. ñuy concours. man man li ma xam sax ci HLM guddi laa ko xam parce que du ma nelaw te kenn du ne woo na ma wuyuwuma ko guddi. maa ngi ci tali bi. donc boo jëlee ne. Euh, corniche corniche bi. Mhm. ñu baree ngi naan maire baa ngi jaay corniche bi may leen bu ngay demee corniche bi ki jëkk ba ki mujj. Mhm. doomi asalem la ki dem nag tukki dafa wuti woon. Mhm. su dellu see ñëw ne maire. man kat dama dellusi waaye dama bugg lii. munuma ko ne doo def lii. léegi dañuy xool mbokk moom ci ligne bi. salaamaaleykum salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay nuyu di dalal. waaw maa leen di delloo ziar. ñu ngi bu baax am tur bi. ak fo waa TFM la. Mhm, xëy na dafa juum ci serveur bi ba yaa ngi doon am wax fu sol korniis bi. waaw yitteel na la lool. torop. Mhm. bi ma xëyee ñu jël corniche bi. Mhm. am na sax ñu ñëwoon proposé ma. plan wu corniche bi. mais boobu xëy na ay tubaab lañ ko doon jox. te bon doon na gën a metti parce que doon na andi njuumte mais dinaa leeral rek. Mhm. ña fa nekk. Mhm. ku ci nekk bi nga ñëwee. Mhm. doomi HLM nga nag. demoon dikk. ñëw ne dañu bugg lii. nit ki nag li mu bëgg mun ko. ci laa ko mën ku ci nekk bi ma lay jox dama leen ne fii ma lay jox. moomuloo ko. doo fi tabax doo fi teg lu dur. da fii fiy teg lu nga xam ne saa ko soxlaa. nga jug benn bi mooy. ñi ko respecté. Mhm. gis nañ ko am na ñu ko respecté wu. mais itam dinaa ci wax nag lenn. corniche mhm. bi waxuma la. Mhm. ni mu meloon mais danger la woon. ci lëndëm. ñu am yaakaar ne ñooñu di doomi HLM. ku ci ñëw ñaan dañ la ne. ñi nga xam ne dëkkandoo yi ñoo impacté. demal nga tàggu leen. soo waxtaan ñoom ba ñu d'accord. boo ñëwee ñu autorisé la. amu ci kenn kuy fay. amu ci ñoom ñi nekk foofu ñëpp. ci rajo laa ne. Mhm. amu ci kenn kuy fay. Mhm. parce que li tax. ñu ngi mhm. sant yàlla itam. parce que tey bu ñu fayoon. doon a gën a métti. ñii ne dañu jaay. ñu ñu jox ñu doon joxe seen as tuut. ñu xëy wax leen leneen dañ na maire bi la. waaye kenn fayu ci. bi ñu demee ba ci biir yoon moo ñu dab nag. ñu ne ñu tali bi voie classée la. ok amu leen droit def fii lii. mais am nañ ci droit nag ñun ak. Ageroute. Mhm. benn lañu. waxtaan ngeen oui oui dañuy wax dañuy juboo mhm. dañuy d'accord. Mhm. parce que Ageroute. du def ci biir HLM lu mu ñu tàgguwul. ñun itam ñu d'accord ne. am na njuumte bu amoon. mais du njuumte parce que suñu njaboot ñoo bëggoon fu ñu weeru ñu jox leen ñu wéeru. ba Ageroute ñooy itam wax li mu wax. nee nañ d'accord nañ bu ñu jógee dinañ def plan. aménagement. plan bi lu mu génnee. Mhm. ku muy sa chance. Mhm. nga nekk fa. ñu xool mbokk moom salaamaaleykum. salaamaaleykum. xëy na dafa juum ci serveur bi ba tey euh, euh, ñoom dañ naan. Ah. maire daal euh, corniche ñoom comprendre ruñ corniche bi yëpp joxe na ko. est-ce que itam yaa ngi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di conseil yi xam ñoom ñooy faral di génn di wax yi ni mel. xam nga xam nga xam nga conseil ñaar rek moo ci am. Mhm. dañu ne maire bu ñu ko woteelee budget mhm. arrêté programme mhm. maire day exécuter programme muy lenn mhm. mooy conseiller bu nekk li sorol mooy boo gisee loo xamul teew yaa war a waxal nit ñi nga dellu ca maire ba nga ne lii laa gis ak lii lu tax lii ñu wax la ko amu fi dara dama la ne corniche bi moo gën a leer. Mhm. percal parce que xam lu tax. Mhm. dara amu fa ñaari nga fay gis nag. Mhm. kii day bugg. moromam bugg. moom amul. mu kaas. léegi mu am ñu ñu mere. parce que dañ defe ne ñun ñoo bañ. temps yi ne maa ngi koy dégg mais li ko andi rek mooy dañu comprendre. ajurut moo ne. nañu organise foofu ñu d'accord. ñu ne leen ñoom tali boobu ñoom ñoo ko moom. parce que voie classée la. trottoir bi. Mhm. am na lu nga xam ñoom ñoo ko ci soxla. Mhm. liñ ci soxla nag dinañ ko jël ñu ànd nag defar dëkkuwaay parce que foofu. Mhm. ñooña fa nekk boo seetuwaan bu tawaan. doo mun a jaar ci tali bi. doo mun a jaar ci kaw. au moins la fa def akas néew. andi na ndoxu taw bi. wàññeeku na parce que ndoxu taw lu mu bugg bugg a stagné. su amul fu mu stagné du fa taxaw. donc loolu avantage ñaareel ba. corniche bi lëndëmoon na parce que lampe ya fa nekk. Mhm. ay solaire la. Mhm. leeruloon noonu. Mhm. dafa am ñuy tëbee autoroute. ak seen i jaasi dugg si foofu. bi ñooñu àndee seen i oto teg ko fa. seen alal la. taal seen i di fay gardien ñeneen ñi nekk seen gannaaw noppalu nañu. parce que ñu ngi nelaw au moins. donc loolu avantage la. Mhm. loo gis nag. Mhm. avantage daf ci am. Mhm. inc mais ñàkk waxtaan bi rek la. mais bu ñu waxtaanee. dinañ xam ñun jubluwuñ ci dara dul. defar corniche bi mu rafet. parce que corniche bi war na am. fu nit ñi féexloo. war na am fu xale yi di foyee. fi mu ne nii prévoir nañ dafa gazon synthétique. parce que bu ñu gisee xale HLM. naan ñu ngi dem Sacré-Cœur. léegi-léeg sama doom ne ma dañu am match deux heures du matin. waaw lu sumay doom di dem HLM di dem Sacré Cœur mhm. deux heures du matin pour football mhm. bu ma yàlla mayee mu mun leen defal loolu ci biir HLM da koy def dama koy def bu soobee léegi beneen leneen li mooy tàggat ci terrain football bi maa ngi ñëw ci ah tàggat yaram bi lañ doon wax ah, ok stade bi nga xam ne tëwut a yegg eh, eh. moom dañ jàpp ni sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa HLM eh. ay temps dañ fi doon dégg HLM ay performance yu mu doon def ci wàllum football mhm. léegi daal yàlla xam doy na de ci wàllu tàggat yaram bi ndax meer bi moom stade bi kañ lay yegg. ok xam nga stade bi nag. tu sais mooy suñu mooy suñu di nga am doom. Mhm. mu judd feebar. xam nga dafay jafeñ faj. Mhm. mais doo ko abandonné. foog nga faj ko. Mhm. mais boo ci góor góorgóorlu rek. yàlla dimbali la. mooy doom bi feebar. am na ku juddu du dox. su bàyyam ñàkkee kii rek mhm. mun na faa doxee lafañ ba faw mhm. mais bu ci jubloo rek yàlla moom mhm. effort rek la wax stade bi moom lu ñu mun ñu ko ci def lu ñu mun mais dafa am lu jiitu te nettali yenn yi amul njëriñ li am njëriñ dëgg dëgg dëgg mooy ñu ngi ci te bu soobee yàlla dinañ defar stade bi parce que ñi nga xam ne ñoo ko war a def ak ñun ñu ngi waxtaan li nga wax itam ci équipe bi ñaar moo ne itam ci équipe nañu fexe xol yi di nekk benn. maanaam jubóo bi daal di jubóo. Mhm. di nekk benn. Mhm. beneen bi mooy. HLM daan nañ ko dégg de. waaw mais. Mhm. boo boo jëlee affaire bi. tey ji dem nañ ba toll nañ fu nga xamee ñi yoroon. ay waa HLM lañu. ay mag lañu. def nañ li ñu mën a def. bàyyi nañ kook seeni rakk. tey jii may wax ak yow. HLM a ngay football it ñuy ñaan mu gañe te fas nañ nag. jàpp ci fii ñu nekk ci suuf nag xam nga dox bu tëdd nag ñaan yàlla jug rek moo fi ne ñu ñaanal leen rek mhm. te may ñaan itam waa HLM la mhm. nañ ñëpp taxaw ci équipe bi mhm. damay ñaan loolu moo dëgg xañ dugg leen kër gu nekk bu kër gu nekk joxee téeméeri dërëm ak yéen li ngeen li ngeen leen di jàppale ñun ñun kay dañ nekk ci biir ñun kay duñ jàppale <laughs> ñun kay dañu bokk parce que ñun suñu rôle mooy. Mhm. maire. Mhm. bu sañee ñu ne équipe bam mooy dem final. Mhm. fas yéene nag def ci lu ñu mun. c'est pourquoi ñuy ñaan population bi yëpp. ñu jàppale xale yi. parce que tey dem nañ ba ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. ñuy ñaan rek. ñu jàppale leen. école football yi. ñu taxaw ci defar ko. ba mun a am nag. ay Sadio Mané ñaari Sadio Mané ñun bëgguñu benn Sadio Mané ah. ñun bëgg nañ ñaar ba ñetti Sadio am ngeen benn mbay Diagne waaw Mbaye Diagne mhm. Mbaye Diagne am nañ ko mhm. mais ñu ngi ñaañ mu am yeneen Mbaye Diagne mhm. ak yeneen Sadio Mané waaye monsieur le dañuy dem benn entre parenthèse bu ndaw loo xam ne du aajo li nga xam ni moom moo jëm ci mairie bi nga xam ne ay commerçant ñoo fi waxoon keroog ah, ñu ne ah. da nga fa yónni ay nervi fële ca marché Petersen coow loolu lu ko und ndax yow da nga yónni ay nervi ñu dem agressé leen wala. xam nga man. Mhm. Euh, dafa am ñu ma xamul. Mhm. wax naa ko keroog man booy dakaar laa man maa ngi juddoo diggante Lambinaas teeru baay soogi. Mhm. kusum ak sumba jun foofu boo ko tuddee rek. ku nekk ndakaaru xool ndakaaru xam nga yaadi kon. xam nga jàllo kaboy donc ku xam loolu rek. war nga xam ne man duma ko ragal. man du ma génn guddi ñu may gunge maay doxal sama bopp ñun nañ daan dox ba bët set bon mhm. man duma jël nerf bi te nerf bi mhm. boo koy jël da koy jël ci fu xeex fu jàmm fu jàmm amul mhm. Petersen la fa xew du loolu mais dafa fekk toujours nag ci biir mbiru droit su kayit demee ba nekk ci loxo procureur dañ la ñaan yow citoyen bi nga bàyyi ko mu def liggéeyam loolu dinaa ko expliquer. Mhm. mais nag mënu ma bañ a expliquer nervi yi. Mhm. parce que ñi ñuy wax nervi yi. Mhm. du ñu ay nervi yi ay sénégalais lañ. yuy liggéey seen liggéey. ay gardien lañ. ku dem tey Petersen. fekk leen fa ñuy liggéey. la fa woon mooy am na commerçant yu nga xam ne dañu amee woon. ay ñaar te foofa. du lu il faut mu leer ci nit ñi. amu ci kenn ku yore contrat. tabax la bu ñu tabax. moo am ay borom. am conseil d'administration. ñu bàyyi ko fa nag. ku nekk di ci def lu ko neex nag. ku ci nekk. ku ci ne man nag sama morom ak keneen ak. ñu ne peinture nañ ci yàlla moo xam. Ah, def nañ ci peinture ci. Mhm. loo war a peinture ak loo am droit peinture. kon da nga jàpp ni dafa peinture loo xam ne. way peinture peinture la rek. Mhm. peinture lu ne xaj na ci biir su ma neexoon ma ne man ba ma neexoon ma ne raxas naa ko. loolu waxu caaxaan ñu yooyu dama ne. Mhm. booy peinture da ngay peinture loo moom. Mhm. foofu la am. Mhm. dama la ne. xeex amu fa. xuloo amu fa. histoire amu fa. lenn rek la. am na ñu amee woon ay ñaari weer. ñetti weer ci seen dépôt nag. moo tax li ñuy gaañ mooy. bëgg a dimbali. commerçant yi nekk ci mbedd mi. ñoom ñëpp boo leen xooy dañuy tukki léegi di ñëw di andi. bu ñu andee seen marchandise amuñu fu ñu ko def. nga yore ay boutique tëj leen mhm. bâtiment buggul lu lu wéet mhm. day yàqu loo tëj ay magasin mhm. ñu ñëw am na ñu fa nekkoon daa dara daawu fa génn ñun ñu ñëw di fa génne suut sax di ko yore loolu donc loolu moo fa am ba kooka fayul ku ñu wax caw la caw la tudd xamuma ko musuma ko gis xamuma ko su ma ko musee gis xaw ma ko foofa teg nañ fa ka ñu fa teg buñ ko laajee askanam bokkuñu ma ak moom dara bañ ko fa tegee ne ko ku fi dugg na la jox li mu koy joxe itam bu ko joxee am na fu mu koy yóbbu du ma gis bu ñu calculer yow nga amee ñaari weer u ñetti weer ñu ne la da ngay fay nga ñaan dele ñu may la nga ñaanaat dele ñu may la nga ñaanaat dele ñu may la nga ne may leen ma ba àllarba àllarba jot ñu ñu ne boo fayul dañuy tëj sa magasin nga ne yow kenn du tëj sa magasin ñu ne la bon léegi comme ñaari kànnaar moo ci ne te nangu woo fay. Mhm. tëjal benn carnar bi. Mhm. ñoom ñu def ci benn carnar. soo fayee ñu dindi ñoom seen carnar nga fay. ba ma ko yëgee. Mhm. la ma ca teg dama ne bu leen def benn problème. laaj leen ko kañ la leen fay. mu ne suba lay fay. leneen li nag. affaire yoon la. ok dañ ko bàyyi bañ dem ci yoon. monsieur le maire. Hmm. yow ak say conseil waxtaan bi. gën na dëggu si yéen yéen conseil yi ndax amul ay tibbante tànk ak yéen parce que dañuy jàpp ni boo nee conseil municipal rek am na ñoo xam sax duñ ñëw dañ naan jàpp ni kii fee la bokkee fee la bokk du ñuy ñëw ndax yéen ca mairie ba conseil yi yëpp dañuy teewee li nga xam ne moo di ndaje ndaje ca dëgg dëgg dëgg dëgg damay wax dëgg rek. Mhm. ñun ñu ngi sant yàlla te dañuy laal bant ñun yàlla may nañu. Mhm. musuñoo def conseil. bu ñu renvoyé. Mhm. parce que amuñu korom. ñu nekk APR rek ñu nekk. beneen parti ak ñëpp amu fa ci mairie bi moom. Mhm. nanguwuñ ko fa sax ñun suñu maire mhm. mayuñu kenn ngay wax affaire politique ñun ñëpp benn lañu. bu ñëwee foofu. soo fekkee. te nag dinaa gën a gërëm nag jigéen ñi. jigéenu conseil municipal. yu HLM. lu leen waa HLM doon gërëme nañ ko gën a yokk. ma fàttali itam ne siège bi au conseil. yow yaa ko gañee waaw kooku mhm. kooku dafa nekk rek mhm. mu di lu nga xam ne mhm. euh, ni cheminement bi doxee woon la mais demal boo xamee rek ñun ñëpp benn lañu ci biir HLM góor ñi ak loo ci mën a wax ay mag a ngi ci mais seen lépp champion bi mag la ko nga xam ni mësul tardé mag la mu ngi ci biir du ma tudd tur parce que boo tuddee war a tudd ñeneen mhm. mais mhm. conseil bu am mhm. commission bu am mu ngi toog moom xam na boppam man xam naa ko conseil yëpp xam nañ ko mais góor ñi ñu ngi góorgóorlu bu baax parce que itam góor ñi bu ñu di mere trop parce que bu ñu xëyee suba dañ leen di yee suba ne xale bi day jàngi école. le maire yow ba jàppoo ni waa APR ñu ngi lay wër ndomba temps i ndomba tànk yi HLM bëri na de. ndax nekk ñu di la wër ndomba. wala itam. Ah, voilà yow de ma bëgg a yëngal mais xam lu tax. <laughs> dama ah, am yaakaar ci loolu <laughs> ah. dama am yaakaar ne. dama hmm. nit moom. Mhm. loo yore. Mhm. te ñëpp bëgg ko. ku nekk am nga droit wut ko. Mhm. c'est jaamit bi ñu ko sàkkee. dañ ko sàkk nag pour mu am ambition. Mhm. mais tubaab dafa ne. Mhm. ambition bonul. Mhm. mais bu ëppee. day dofloo nit ki. te dof yi. dañ leen di parke ñuy ñaan yàlla HLM. yàlla musal ñu ci loolu. kantaan bëgg-bëgg mun na am. bëgg-bëgg mun na am. c'est normal mais ñu gëm itam ne. nit ki lu muy yóotu yàlla na ko moom. parce que kat léegi moom yàlla moom won nañu lépp. liir bi. ci biir yaayam la. kii génn mhm. bisu ngénte ba ñu ne suba la ngénte bi mhm. mu dem kii ñu ngénte ba pare mhm. mu dem kii ñu ne lii ñoom ñoo doon julnindoo ci jàkk ji pourtant bii ñu àndoon ani mu dem na yàlla won nañu lépp na ñu gëm ne rek nit moom doo jël loo moomul mais nag nañu ànd xam ne lenn rek mooy finalité bi mooy HLM nañ jël yëpp jox HLM man defuma sama bopp maire mm-hmm. askan wi su ma amee yaakaar itam ne mm-hmm. dama fiy toog daayi man dappet mm-hmm. damay nax suma bopp su ma yaakaaree ne li ma yore man rek maa ko war a bëgg damay nax sama bopp mais nag am na lu nga xam naa ko de sama bopp nag dañ ma fal pour ma liggéey dinaa liggéey te kenn du la ci faxastaan mukk ci kër léegi li nga fi wax yëpp réalisation ah. monsieur le maire xam nga ni euh, mandat yi des fois dafay euh, xaw a tuuti ah. ndax li nga xam ni moo di ay chantier yi nga xam ni dëgmal nga ko yow am nga yéene yeggali ko naam benn at rek parce que fixagul li nga xam ne moom moo jëm ci élection locale yi ndax bu nee san sampaat ndënd ndax yow di nga sampat waaw xam nga nag ñaar rek moo am mhm. nañ ñaan fekkee mhm. te tal ko mhm. dama yaakaar ne maire buñ la falee dañ la fal pour nga liggéey boo liggéeyee nag e am nga droit nag ne ah comme liggéey naa te lii parewuma ko mhm. mun naa koo yegg di mhm. waaye boo deful dara li taxaw ni xam ne di xool nit ñi ba mandat bi jeex nga ne dama buggaat nit ñi dina la ne doo ñu yàpp loolu moom bugg ñu noté ko moo di ne amul kenn ku buggul amul kenn ku bañ mais ni ñu gëm yàlla yéene baa ngi fi nag bëgg-bëgg baa ngi fi ñu ñaan yàlla may ñu mhm. ñu mun ko def mhm. te itam nag dina am lu may wax xale yi nga xam ne ñoo nekk ci sport bi mhm. vraiment maa ngi leen di féliciter di leen remercier tey jii boo xoolee ñoom ñëpp génn nañu HLM ñu nga jëm Tivaouane su dul woon émission bi danaa leen dabe ci Tivaouane bett leen parce que suñu bëgg-bëgg ñun mooy équipe bi dellu fa mu nekkoon. sinon plus. Mhm. association yi. Mhm. ASC yi. Mhm. yëpp. parce que tam su ma tuddee xale yi nekk ci mairie bi. di liggéey ak ñun ci mairie bi. kenn mënu leen a fay. kenn mënu leen a fay. parce que tam nit ki booy xool da ngay xool sa bopp. sa doom tëdd ci sa kaw lal. ay yeneen xale xëy suba. di yenu ay kees di bale ay mbedd. nañ ñu dimbali nag ci biir prototype bi ñu wax. Mhm. damay ñaan waa HLM. Mhm. bu leen si kenn jiitu daal na ku nekk di bale buntu këram. Mhm. di bale trottoir bi. bu ñu balee trottoir bi. bu ñu dajalee. maire bi ñëw tibb. bu kenn toog naan mbedd buur la. na ci ku ci ne jàpp te nu waxoon ne. HLM kat ñun dañuy compétir. pour gagner coupe bi nag. ah bon ah dañ ko bëgg nag. HLM neex naa defar de. Ah. ci waaw neex na defar benn un la. Uh-huh. boo gisee un ci tubaab mooy. numéro un number one. Mhm. ñun ñooy number one. Mhm. ci ndakaaru gi ay bëgg-bëggam la wax daa mel ni de. <laughs> non loolu mooy li yàlla defal nañu ko. yàlla defal nañu ko. Uh-huh. yàlla defal nañu ne HLM am na lu ma fi seetlu wax naa ko ngeen baal ma. HLM dëkk la bu nga xam ne gis naa fi lu ma neex. Mhm. moo tax ak lu ñu yëngatu yëngatu rek. loolu def HLM laa gis. am na ñu ngi dëkk cité Kër Marie. am na ñu dëkk Tëngéej. am na ñu dëkk jam Jamñaajo mais bu xew amee HLM. ñëpp dañuy wàcc. bu tabaski amee mhm. ci koñ yi ñëppay daje mhm. donc loolu mhm. signe bu valable la nañ ko sàmm sàmm suñu diggante te bu kenn tëdd nag naan maire bi mu war a defar ñëpp war a defar ku gis lu nar a yàqu defaral soo mënul defar ñëwal wax maire bi mu defar daanaka bu ñu xoolee benn simili rek ba moo des ci émission bi ah. am na loo xam ne bëggoon nga ko wax te laajuma la ko lan la xanaa leen rek yàlla may ñu li ñu am ci temps wax nga ko sànq bariwul mais nag temps moom du tuuti temps du bari xam nga luy temps mooy volonté soo buggee rek yàlla dimbali la ci mooy lan yàlla may ñu pour le peu de temps bi ñu ne ñu réaliser lépp lu ñu buggoon réaliser. Mhm. bu ñu ñi yaakaar ne lu ñu ko buggoon defuñu ko. Mhm. dañu ko amuloon xol baa ngi fi yéene jaa fi mais poos bee fi nekkuloon. Mhm. comme yàlla def na léegi poos bi mu ngi funki. nañ fexe ba def ko ci nit ñi. lii tey président wax. nañ buñ ko jëlee nañ ko jël na ñun ñoo ko moom. mooy. tilimaay bi. te bu ñu amee lu ñu gën a nag. suuf. ñoo ak moom a dëkk. Mhm. mais ñu fexe ba yàlla may ñu ñu am lu ñu koy arrêté. Mhm. mooy lan ñuy ñaan itam waa population bi. Mhm. di leen baalu nag. am na lu fi xew. bëggoon naa ci baalu. dañu xëy suba. gis ñuy def ay piquet. ci seeni quartier. du yab leen du dara xir rek la. xir rek. bëgg defar parce que nit ki bu ñëwee ne dama lay defaral lii. parking yooyu ñu def ci quartier yi mhm. soo demee quartier boo ci dem mhm. am na mhm. gardien bu fa ne du fa yeewoo dëkku fa jëlul xale lu ay nit ñooy ñëw toog ne dañuy garder oto yi te bu weer ku nekk fay nga am ko nga xam ne day ñëw defal la lumière defal la appareil di la gardeel jël seeni doom ñoo fay nekk mu paweel leen ko defar leen fleur tegal leen ay banc mhm. kooku duma ko gis di ko bàyyi dama ciy topp mhm. ñi ko gis seen ko te xamuñu mhm. ñu ngi leen di jéggalu mais du yabeel du dara dañu gis ne lu baax la rek bu loo gis nag sa biir kër morom ci sa kër morom mu rafet da koy jéem a def sa kër ki ko def itam yàkkamti rek la parce que comme gis na ne fa mu ko defee yëpp am na fa waaw góor mu am yaakaar ne bu ko fi defee dina am waaw góor mais nag na gëm ne am na waaw góor mhm. ñàkk waxtaan rek la mhm. te gëm naa ne mhm. bu ñu waxtaanee dinañu juboo incha allah incha allah li la bëgg a xamal mooy bu ñu amee lu ñu gënal Senghor ne woon na def Dakar comme Paris di ah, nga def HLM ñun duñu a Dakar comme Paris ah. HLM comme Paris ah. mais def HLM boog ñu ne amul benn koñ ci Ndakaaru booy dugg fàtte HLM ok monsieur le maire. waaw ah. benn euh, jëw rek bu ndaw ñu ne dangaa jafe jot. dañ la koy dañ la koy ne da ngaa jafee jot looy ton ci loolu. waaw peut-être loolu nag vraiment <laughs> euh, tontu bi. Ah. boo gisee ma xaw a hésité. Ah. man damay xëy suba toog ci maire bi. Mhm. di recevoir. Mhm. ba guddi. Mhm. maag samay xarit ak ñëpp ñu toog di liggéey sama kër kenn du ne di nga ñëw suma kër ñu la dafay nelaw sama kër nit dina ñëw sama seet si ba may nelaw di wax ak moom bay nelaw dinaa dégg rek mu yërëm ma ne kii dafa sonn xam nga dañu koy def parce que dañu xam mission bi xam itam coono bi xam it ce qui se mooy nit ki moom bu la yàlla joxee boobu mission. Mm-hmm. da nga ci war a bég. mooy ñooñu waxee dama dama jafe. Mm-hmm. peut-être dañu ñëwul ci mairie bi. Mm-hmm. dañ dem ci beneen mairie. wala jaaruñu ci yoon bu baax. wala boog jaaruñu. parce que foofu bu ñëwee. ay conseillers nga fa comme man. ku ma ci musul gis koo ci jaar ci moom. su ñëwee bu waxee. ñu ne parce que problème loolu tam. nit ñi moom. il faut ñu ñuy soxla. il faut ñu di seeti. warul andi yabeel.

ma wuyu la. Mhm. du ma fay téléphone. suba mhm. du ma ko fay ngoon. en tout cas mbégte la woon tey ñu dalaloon la tey fii ci émission gox bi bu fekkee am nga kàddu goo xam ne mën nga ko tëjee ban kàddu la. kàddu bi mooy ñaanal sama remercier quand même yi ma nekkal di liggéey mhm. parce que dafa métti nag. parce que il faut nit ñi xam. lan mooy conseil parce que dañu yaakaar conseil bii dem ci mairie bi. dafa am dara amul fa dara la mu fa am rek mooy sac bi ko population bi defal mhm. ne ko jiital nañ mhm. ñu nekkin ñu nga xam ne ñu faru lañ mhm. ci liñ leen dénk surtout jigéen ñi je précise parce que ce n'est pas que dama féministe mais dama gis ne euh, ñu sawar lañu ñu bëgg li ñuy def la amul na kenn ci mairie bi ku nga xam ne amal naa la ci kànge bu ma lay sikk amul parce que gëm naa ne ñoo ñi ci biti ñoo bokk xam nga fii da ngay xëy ngay wax sa social mais xamuloo socialu keneen ki donc vraiment maa ngi leen di remercier di remercier itam personnelu mairie bi mhm. parce que bu dul woon ñoom dina métti mhm. di remercier population bi di leen baalu di jégalu mhm. di wax ne itam on est à la dis bu ñu hésité lu ñu gis mu bon rek nañ ñëw muy guddi muy mhm. bëccëg. Mhm. pour que ñu defar HLM. Mhm. wasalaam. mbokk yi itam euh, sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun ci émission gox bi ñu amoon na yéene dalaloon ki nga xam ni moom moo di Babacar Sadikh Seck di maire wu HLM. di leen sant di leen gërëm di gërëm itam ñi nga xam ne nag ànd nga ak ñoom ñu doon ay euh, nit yu disponible lool jox leen dig daje ba dimanche prochain incha